Ngexoox tey dafa nekk ci situation bu doy waar sunuy ay papa sunu ay maam dëkk ci dëkk bi ñu bokk ci dëkk bi ñu am jaraaf boo xam ne dafa jël dëkk bi def ko moomeelu boppam ku ànd ak moom loo bëgg di ko am loo soxla mu yomb la ku àndul ak moom boo bëggee sax extrait pour sa doom di nga ci sonn lool pour nga jot ko te jàpp nañ ni commune maire yi dès l'instant que ñu am jarax bu bees amatul xàjj ak seen ñëpp la war a yemale ki far ak moom ak ki farul ak moom ndax service yoo xam ne la état nguur moo ko fi teg mais li ñu jàpp mooy warta boole politique ak état politique ak administration mairie ci loolu ñu gis ne dëkk bi am na ay rëkk-rëkk am na ay lox mbóot yoo xam ne doy na waar lool bi ci njëkk nekk benn marché benn luuma boo xam ne moom lañ moom la ñuy wax marché jàmm gën nekk ngekoox marché bobu ci taw wu maire Abou Ndiaye lañ ko defaroon wayé dafa am lo xamné ay liggéey yu ñu entamé la ci équipe bu bess bi nga xamné ne maire bi actuellement moko diriger ci li ñuy wax fond de concours nga xamné nguur gi chaque at day jox commune yépp xaalis xaalis bobu tollu ci 27 millions ci lañ jël ñom 6 millions pour tabax ci ay douches ma japp né douche 6 millions mom xana warna am climatisation ci bir war naa am peut-être fu nit ñi mën a toog dallu mën naa am sax fu ñu lekkee ndax 6 millions ci douze moom man maa ngi koy doog a dégg te document boobu mu ngi ak ñun document boobu ci euh, séance su conseil municipal bi le 16 mai 2020 conseil municipal yi jot nañ ko te voté nañ à l'unanimité presque décision bi maire bëggoon maanaam ñu tabax ay douze ca jàmm gën ci 6 millions 500 ma jàpp ne loolu loolu lu doy waar la.

dem na ba day dem ci commerçant yi di def régularisation manam da leen di laaj xaalis pour ñu jox ko ko pour mu jël ci xaalis bobu diko tabal ci liggéey bobu kayit wii ma yor ben kayit la bo xamné reçu bo xamné mom moko def ci turu Ngexox cachet baa ngi nii ci ben commerçant bu ñu encaissé xaalisam pour né ko dafa wara régulariser kantinam donc li ni ben la rek ci exemple yi ñu yor parce que am nañ preuve yi ñi wax. ñoom loolu lañ jël dajale ko di ko injecté ci travaux yooyu ma jàpp ne warta demee noonu ndax yi xaalisam pour mu génn trésor moo koy génne trésor mooy comptable mairie bic bu cent francs sax su ko mairie waree génne ci jibaam dafa war a jaar trésor am traçabilité am mandat am ordre de lépp leer ñu xam ne xaalis bi kat ci compte commune Ngexox la jóge dugg ci askan bi mais maire amul droit di yebal ay nit ñuy encaisser xaalisu commerçant yi pour di ko dugal ci ay liggéeyu loolu jaarul yoon li ci gën a doy waar nag mooy moom waxu ci dara moom maire bi mu ngi toog seetaan bàyyi liggéey boobu kenn xamul lan moo fa am te ma koy laaj ne ko 6 millions 500 yooyu nga xam ne moom la nguur gi jox euh, dëkk bi bi tudd Ngexo pour mu tabal ko ci liggéey boobu ndax xaalis boobu génn na trésor wala waaw bu fekkee génn na ñu wan état d'exécution budgétaire bu 2020 ndax bu génnee rek ñun daañu ko mën a xam ndax waa trésor war nañoo mën a génne këyit boo xam ne da ngay xam xaalis moo génn trésor ren ba ci bis bi ñu toll ñii tey te waa Njaxoox moom ko loolu rek lañ koy laaj kon jàpp nañ ni scandale gënte rëy construction marché boobu beneen scandale bi nga xam ne moom moo doy waar moom la ñuy wax abattoir communal bi muy fi nga xam ne moom la ñuy wax bétoir fi ñuy reyee jur gi te boucher yi yor ko abattoir boobu dafa amoon boo xam ne moo fi nekkoon nekk ci ci tool bu ñuy wax wetu toolu Baye Xali ci yoonu Somone bi mais bi Ageroute soxlaa tabax autoroute am dañoo gis ne dafa am partie boo xam ne daf koy laal partie boobu nag comme état terre yëpp pratiquement bu dul titre foncier wala bàyyi ay terre relevant du domaine national la état am na sañ-sañ jël toolu nit bu fekkee tool boobu nekkatu titre foncier wala bàyyi état moo manifeste demande wax ne abattoir boobu na ko commune Ngexox jox mais en contre contrepartie daf koy dédommager jox ko xaalis xaalis boobu nag la ñuy laaj monsieur le maire bu Ngexox ñaata la jot ci Ageroute

mu tontu ñu ci tontu yooyu wax ñu abattoir boobu nga xam ne moom la ko Ageroute jël benn wàll te genn wàll des fa genn wàll gi des ndax commune Ngexoox moo kon ne di ko moom ba léegi wala jaay nañ ko wala bu fekkee ne ñun ñoo ko moom lan la ci commune bi nam ma def abattoir bi nga xam ne moo nekk bu bees bi te nekk maanaa dañoo jàpp ne ñu ngi koy tabax te gisuñu contrat bu lié entrepreneur ba koy tabax ak mairie ba parce que mairie bi warta engagé benn liggéey te amul contrat bu ko boole ak kenn maintenant le maire dans ses prérogatives a une obligation contrat est-ce que amna wala amul ndax DRP amna wala amul bu fekke amna le procès verbal d'attribution du marché ndax kat marché bo gis dana am commission bu koy joxe te commission dañuy ne bis sangam heure sangam nit sangam dajé nañu ñun ñoo jox ci sunu bakken marché bi diw pour mu liggéey li ak li ak li ak li lolu moy contrat

dañ ko ñaan Macky Sall président de la République mu indil ñu délégation spéciale fi ak élection yu bëss di am comme nak dégg nañ ne dafay ñëw jaale ci El Tamsir Saxo mercredi prochain inshallah ñun jeunesse su Ngexoox dinañ organiser wu ak tous les responsables politiques qui sont là ñu dem porter ko la doléance des ngexox wa né ko dañu bëgg mu installer ñu de vive voix délégation spéciale parce que li am ci dëkk bi doyna na Thank you.